ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll mën a jot boo ko mën a xam que boo ko jàngee li ngay jëkk yéene mooy fekke ko ndax ni mu waxe escorte bi ak bu góor gi dee wàcc ñaq bi génne ci jéem. di tok ci nature bi moy la nature bi ba mo pour coopérer avec la race humaine yonent bee ko bu ko yépp Vous waye bu noppé mission ba nak yi yépp jant bi

comme pexe amul nag ku ne la nga jot rek ngay dunde kooku noonu rek la demee tubaaba ku dul tubaaba ci yem nit ku ñuul ak ku dul nit ku ñuul a ci yem araba ku dul araba ci yem ku ne am nga loo yëg loo yëg loo xam ni lii gan la gan la xamuloo ko woon moo tax yonent bi ko honnête la ma su ma gis mukk texte bu rafet ba àgg foofu te def ko yéene ay sabnu Mariam seetal loolu moo tax rek tabarkalla tabarkalla nu ngi ñaan rekk nu fekke ko ndëgë ni kenn bañ ko wuti ñu ngi ñaan itam jàngoro moom yàllaa ko ëpp doole ku ci am looy metti yàlla fajal la ko te doo ci am coono yàlla nu ko yàlla boole defal te itam li gën a jafe léegi mooy faj soxla waaye ki mu gën a yomb mooy yàlla te ki mu gën a rus mooy yonent bi kon nag ci barke yonent bi yan na yàlla dinu may nuy faj suñu soxla te du am tiis yal na yàlla itam di nangu lu ñu ko jaamu mu nangul nu ko te bañ a seet suñu doyadi xanaa nangul nu ko ci kaw amunu ku dul moom na waaw parce que ki nga amul lu dul moom wax dëgg yàlla sañ nga ni ko awma ku dul yow boo ko defee lum la war a fajal mu fajal la ko yal na nu ci yàlla dimbale te ñu ngi koy ñaan mu intervenir ci kanamu yonent bi pour jottali ko loolu yonent bi itam ñu ngi koy ñaan ci barkeem mu jottali nu yàlla loolu waaw kay kooku loolu rekk na demee nu bokk ko dama ni woon ma ñëw rekk barkeelu ndax dama am sama benn doomu ndey la doomu baay la mu demoon seetaane seetaanewul daf doon participer ci conférence bu Serigne Moustapha doon defal waa Moustarchidine ba mu ca jógee mu ñëw ni ma xam nga nooy defal en tout cas ni ma boo xëyatee jëlal sa kaan bi topp yoon wi doxantu ba ca géej gi nga toog fa waxtu yàlla ba am air bu baax nga dellusi si rek jaaxal bàyyi xale ya ca naaj ak seen ko <laughs> wante xale yee bëggul loolu ñoo wétal la ñu bëgg tabarkalla tabarkalla kon nag yal na wétal yàgg yal na wétal yàgg ngeen yàgg ko fekke nu yàgg ko fekke te sunu kilifa yi nangul nu lu nu jaamu lu mu doye di doye ñu nangul nu ko yal na nu ko sunu kilifa yi defal wa tabarakallahu ahsanul xaaliqin loolu moo nu indi woon pour ñu participer ñëwunu woon pour seetaan dañu ñëwoon pour participer participer ci euh, liggéeyu euh, aînés yi fi nekk participer itam ci liggéeyu sët yi tabarakallahu dama ko fàtte ci kër ga maa ngi amee benn leetar boo xam ni billet dix mille francs nga ci benn xale bu tuuti moo ko indi boole ko kayit kayit ga xam naa dafay soog a jàng mbinde ndax dafay soog a dugg lekkool daal di def ca kayit ga maam Cheikh vous boobu intérieurement et extérieurement. dal di ma koy joxe rek fa waaw bàyyi ko man ma dindi fekk ci dix mille francs ma ni muy yéen lii kenn mësu koo gis ci àdduna pour wax la ni cofeel dinañ ko donn wallaay dinañ ko nàmp dinañ ko donn cofeel dinañ ko nàmp dinañ ko donn ndax kenn xamul lu tax mu def loolu am na benn guddi dama agsi rek fekk fa ku toll nii ñu ne ma moom de dafa am lu mu amee bu ñu laajee rek mu bañ ma agsi mu ni maam Cheikh ma mu teg ko sama loxo rek fax ndeke pas si daal la dafa dégg ni dama soñ seetal loolu moo tax cofeel dañ koy namp cofeel dañ koy donn tabarkalla tabarkalla ñoom ñëpp yal yàlla màggal leen yàlla barkeel leen ci kanamu wayjur yi ci kanamu maam yi ci kanamu maamaat yi ci kanamu tante ak bàjjen yi yàlla na ko yàlla def ci tabarkalla ah xam naa dama mel ni mu ngi bëgg guddi tuuti de ah? moom de xam nga boo màggatee rek màggat nga dara nga ci la wallaay ndeysaan yàllaa koy dogal waaye rek di góorgóorlu na lu bañ a bàyyi di góorgóorlu bañ a bàyyi tabarkalla tabarkalla tabarkalla di góorgóorlu bañ a bàyyi waaye ku la ni man jote naa ak chef politique yi dara xamul histoire réew mi xamul histoire réew mi ku ci la nga ma mujj wax rekk laa jàpp ku ci ne la nga ma mujj wax rekk laa jàpp dama ñëw ci sengoor mu ni ma dama invité au ñetti yoon bu waxtu wa jub mu gàntal ko waaye ñu wax ma ni seetkat yee ko tere te loolu xaw ma na muy man nekk ñu ni seetkat yee ko ko tere te man xaw ma loolu nu mu man nekk ma ni ko ah, man de damay voyage te dinaa jaar Abidjan te maa nga jëm Beyrouth danaa ci xam dara wàcc Abidjan gis au feu mu ni wallaay mu ni ma kenn jabaruma kenn jabaruma dafa fekk tubaab yi fi mu ne pour chef d'état africain yi nekk benn dafa leen di tiis te dafa am nuñ ko bëgg a doxale pour tas ko te ni ñu koy doxale mooy dañu bëgg Senghor nekk sunu tubaab ñun ñëpp nuy neegar te boobu nag dafay diis ci nun bu ko Senghor xamee ba xam ko nag njariñ lay doon waaye kan moo ko koy wax ma ko man maa ko koy wax parce que mën naa ko ko wax te du ñaaw mu ni ma waaw kay ba bu ma yàlla te ma dem ba wàññeeku ma dem ruut yàgg naa fa sax ndax dama fa am ñetti invitation moo tax ma yàgg fa presse bi yépp wax nañ ko sama séjour boobu séjour bu amul morom